saana ilaahi bil munaajihati wa abadan axnaa yadi han hati saana ilaahi bil munaajihati wa abadan axnaa yadi han hati di nuyu invité yi di gërëm ñëpp ci seen teewaay parce que mën naa leen gërëm waaye nag da ngeen may dama nekk ku ñu yónni kon nuyoo bi dañ ciy jiital sëñ Ahmed Saloum Dieng muy nuyoowu nag le président de la République moo ne ma woon naa ànd ak ñi ma àndal délégation bii ngeen gis ci taabal bii. loolu nag euh, sëriñ bi dafa am lu mu wundu mooy fonk gi président fonk bés bi. Hmm. am na fu ma waroon dem waaye tey jii mënuma woon ñàkk teew pour ñaari bés ñaari yëf fonk gi président fonk bés bi.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 te ci lañ lay fekk toujours kooku ñëpp la seddeel seedeel Alaaji sa wax na ko léegi sama mag bi fi jóge wax na ko nga am taxawaay bu rafet ci biir Thiès ku xewle yaa nga ci moom ku xewlewul itam boo toogee ba xalaat ko danga jël sa téléphone woo ko man mii damay séq yow lu bari ci hmm. loolu ma lay suivre ci bitim réew di la suivre ci Sénégal te kon mën naa firndeer loolu nit nag loolu lañ koy doyee day utile te utile nga ci sa société pour sa société dañu nekk nag ci jamono ju nga xam ne dañoo soxla jàmm mm-hmm. naam jàmm dañ ko mës di soxla waaye rawatina fi ñu toll islaam nag ah dafa ànd ak jàmm dafa ànd ak tolérance Je suis doublement heureux d'être euh, appelé à la tribune et de faire partie de euh, cet élan magnifique des hautes euh, hauts responsables et hautes personnalités notables de ce pays, à commencer par Madame le ministre, représentante de Son Excellence, le président de la République sœur du Sénégal, et à ses côtés, Monsieur le préfet, à mes côtés, euh, d'autres comme le sous-préfet, mais surtout, je ne peux pas manquer à citer mon grand ami et frère, Sérine Ahmad Saloum Diang, qui est le coordinateur de cette union. C'est ma cinquième année au Sénégal et sur les cinq années défilées, on était toujours fidèles à venir et participer et à chaque fois, on évoque euh, des thèmes différents. Et je félicite le choix euh, de thèmes euh, concertés entre les grands savants et les grands imams les grands intellectuels de ce pays, de, tout, euh, de tous bords. On est là pour évoquer un thème nouveau et pour également sortir d'une position concertée sur un des sujets qui concerne la Oumma. Et si je suis là, je suis là également pour euh, assurer euh, le thème de la solidarité permanente que l'Union de la jeunesse musulmane n'a jamais cessé de rappeler et de répéter et de mentionner dans ses communiqués et dans ses communiqués fi de final euh, de toute rencontre. wa wa wa wa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 ñu nekk fii ba suba ci ngoon suba dinañ fi def fukki conférence yoo xam ne 9h suba dañuy commencé ba 19h ci ngoon conférence yooyu aussi ñu koy def mooy ay dominant euh, professeur la ñu ñu xam ci réew mi xam seen xam-xam ràññee seen xam-xam waaye xam seen nekk ci wasatee wasatee mooy juste milieu nga xam ni du ñu ni ñoo xam ne ñu jeng jëm fii wala jeng jëm fële wala ñuy wax ci parparloo euh, donc loolu suba lay am fii incha allahu taala euh, professeur yu gën a mag ci Sénégal ñoo fi ne ay eh, professeur d'université jóge université bu Saint-Louis jóge faculté appel islamique jóge ci daaray Kokki ñoom ñëpp dañu fi nekk suba eh, lu mat 40 association aussi nañ danañ participer association bi ne dana yebal nit eh, association bi ne yebal ñaari nit ñu nekk fi jóge ci 14 régions Sénégal yëpp ñu koy def loolu sax aussi bu ngeen gisee ñu koy def dañoo gis ni al fitnatu naa imatun la an la xam ay xasa fitna dafay nelaw yàlla rëbb na ko ko yee gisaat ni jàmm mooy base lépp mooy base développement mooy base stabilité moy base sax deuk deuk deuk deuk ndo deuk deuk deuk ndo bu rafet euh, ndax jamm bu amul euh, dem marché ndugg sax du am dem ci sa bureau liguey du am gis ngeen tay la am ci libi nga xamni la naka région bu dafa am gouvernement bopam gis ngeen la am ci Mali gi bu yagu rek da naka ñaari weer yu ngeen gis Mali ñu ne reyna ñaar fukki nit reyna témé téeméeri amna Niger bu yagul mu ngi am fu ci aduna fitna ji yeen a koy dégg euh, mu mel nak loolu nak nga xamni ñaanu ñu yalla mak ak Sénégal bëggu ñu mu agsi fi motax ñu sensibiliser opinion yi ndax wax ji ñu wax fi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 dont lu baax la ñuy def nag ndax addaalu àll xëy rek a faaydi soo defee lu baax ku la ci roy rek am nga yiw am na yiw kon ñoom ñu ngi leen félicité nag xam nga Abdoulaye Dia bi def Sénico bi def concours bi chaque année moom euh, def ko ci concours bi euh, forum bi bi dimbale loo ko fekk mais noonu la ci def donc loolu day wane ne ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy liggéey mooy toolu lislaam bi lañuy suuxat euh, diine lislaam la ñuy suuxat wane lislaam la ñuy suuxat wane lu baax la ñuy suuxat waaye président Macky dama koy sant ndax concours bi def naa ko ba mu am 20 ans defe naa wala 22 ans benn état monsieur jaar na fi Abdoulaye Wade jaar fi moom bi mu toogee ba tey soo ko bindee dana la tontu bu bis sa jotee dina ndax na ko gis nga Sénégal yi sax dara jóg ba ñëpp tiit mais lu koy fay sa doo ko xam te la koy fay mooy lan mooy ay kilifa ñuy jël seen téléphone woo seen njaboot yu ne ca loolu neen bu leen dugg ca loolu ndax doyuma donc Sénégal réewu kilifteef la koo gis muy dox Sénégal rek 95 pour cent sénégalais am nañu kilifa am nañu kilifa te kilifa yooyu nag ñoo yor jàmmi Sénégal wax naa ko daaw ci bisu alxuraan bi nee naa leen différence Sénégal ak ak réew yi ñuy wër wala réew yi ci àdduna bi mooy ñun dañoo am dañoo nangu kilifteef te di boo demee Gambie rek amul ay xalif général <laughs> boo demee Mali amu fa boo demee benn amu fa boo demee feneen amu fa donc ñun tënku gi ñu tënku moo tax euh, def lu safaan du yomb ndax ku am kilifa doo juum te amul benn kilifa bu boo xam ne yaa ngi woote safaan gis ngeen sëñ bi ñu laalee kenn ci doomu daara yi dafa woote jàmm woote staff ne bu kenn def benn fitna nañ toog bàyyi nguur def li mu war def te boobu am na ñu jógoon taxaw pour bu jëm mbir mi euh, mu jaare ci jur fitna ndax toog ngeen tribunal bu tribunal Louga te leneen mënoon ci xawaat ndax niñ bu démé way waaye sëñ bi yëkkatee kàddoom lépp dana nem di sant professeur yi fi teew yëpp suma suma suma ma su ci nuyoo sëñ Abdoulaye Diagne mi nga xamni mo ñu doon jàngal fi ci Cheikh daara Cheikh Mahamadou Moutala mi nuyu na professeur yi fi teew yëpp imam yëpp ñëw leen tay ci Thiès kenn wul ma ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp alaykum jamono ji ñuy waxtaane dialogue national ñi ko yëkëti am nuñ ko xalaté ñeneen ñi am neneen nuñ ko xalaatee mu mel ni yow nga yëkkati ko indi ko ci façon boo xam ne buñ la dégloo déglu li nga lancé ku ci nekk da nga ko jox raison en tout cas euh, bu fekkee ne ci côté lislaam la bindkatu tubaab bu ñuy wax Louis garde ginnaaw bi mu jàngatee système islamique ci wàllu politique dafa jommi dafa jaxasoo mu ne moom dafa jàpp ne lu ñuy tuddee modèle démocratique maanaam xeetu doxal pénc mi waaye lislaam du yam ci pénc mi mooy lépp loo xam ne nit a koy def lu mu tuuti tuuti ak lu mu rëy rëy ñi teg ko ci weccu xalaat ginnaaw bi mu ko jàngatee ci alxuraan dafa mel ni ku jommi mu tuddee lislaam loo xam ne doonu ko waaye dafa jaxasoo rek ak jommi mu tuddee ko théocratie laïque et égalitaire xam nga théocratie buñ ko waxee ci démb tubaab bi te loolu mooy nax intellectuel yu bare bare yu mel ni yu melul ni professeur Djibou Diakhaté euh, dañuy dégg dañuy jéggaani ay notion jéggaani nu ñuy déggee yu baree bari ci feneen ba tax na tey boo ne lislaam ak politique ñoom théocratie la nuy tudd te lislaam ku ko xam surtout ni mu indee euh, shura waxtaan ci biir pénc bi te nga xam lan mooy théocratie théocratie presque mooy li Louis quatorze doon wax nous ne tenons notre couronne que de Dieu. démocratie mëno wax ni ci ni ñi doxalee politique la rek mëno wax ni na ñëpp tolo ba paré boko dé xol ñen ñi am akimo alal bu bari ñeneen ñi amuñu dara démocratie dafa am ci économie démocratie dafa am ci culture démocratie dafa am ci njang dafa am fépp pour wax la né né dañu ne yéna tolo démocratie etc mais niñ koy doxalee ci bir da fay melni daf ci am daf ci am ci mbirum am am daf ci am motax ñom tuba bi ci seen bop dafa am ñu taxaw ni démocratie gënul bo lo ñun ci suñu cosaan benn boroom xam-xam bu tudd Camara Laye dafa bind téere bu tudd l'enfant noir mu ni bi muy nekk gone ay wéjuram dañ ko doon wax am na waxtu yoo xam ne waroon na ci biti waxtu yooyu ak loo mënoon ci jàpp bàyyi ko nga ñëw ci kër gi dañ ko doon tiital sax ni ko boo ne ci biti jinne dina la sant mu ni dafa nekkoon waxtu yoo xam ni diggante midi ba ba ba ba 2 heures 14 ak bu timis jotee ñu ni ko loo mënti def rek ak loo mënti japp bàyyi ko nga ñëw mu ni bi ma demee ba mag la gis ni nek ne ñaari mbir la lañ ma doon titalé bi ci bi ñëk moy waxtu yoy waxtu julli la won donc bu gum ma makoy wuté dañuy bëgg may nek ci kër gi bi ci top mom moy waxtu añ la won ak waxti rër mune waxtu añ ak waxtu rër dafa amone solo parce que dafa am nek ne ay jikko yuñ doon def ci man moy ndap lañuy euh, tek ci suuf ñom ñu ni ma togal néna bu li ñuy ñëkkal di jënti moy tok ba may tok ci ndab la na nek tok bu tok bu yiw tok bu sel ginnaaw bu ma toogee toogin boobu ba pare ñu ni ma nag ndab li na ko jàpp ak sa loxo càmmoñ ndab li warul yëngatu moom ci boppam moo dem ba ni ndeke ne ndab li mooy société bi ndeke ne ndab bi mooy penc mi ku ci ne war nga koo téye ba pénc mi war du yëngu ku ci ne am nga ci responsabilité na nga ko jàpp sa loxo càmmoñ ba du yëngu mu ni bu loolu weesoo ñu ni ma sa loxo ndeyjoor ngay lekkee te sa loxo ndeyjoor boobu sa kanam dong nga war a yem. waaw mais loolu kay démocratie weesuwul loolu donc ku ci ne sa kanam dong nga yem. mu ni ndawal ga ca diggu ndab la mag ñi dong ñoo am sañ-sañu laal ko waaye nag am na ñu xel bu toll ni ku ci nekk ndaw ci euh, ndab li dinañu dagg la nga la nga soxla tegal la ko ci sa kanam waaw loolu du répartition équitable de ressources de la communauté maanaam li nga xam ne ñëpp ko bokk ki nga xam ni moom la ñu ni yow yaa koy yor ku ci ne la nga war a jot di nga ci jot euh, ci sa kanam dina la fekk foofu dañoo bëgg xam ne tuuti ci euh, lan mooy maanaam maanaam bu dee olof nag diisoo la ñu wax voilà diisoo mooy mooy mooy diisoo mooy suura mooy waxtaan ko maanaam loo xam ne ñëpp a ko bokk ñu fas yéene toog waxtaane ko ba nga xam ne euh, lañ ci bëgg doxal dana dox mu mel ne bu ñuy wax concertation mooy suura mooy diisoo diisoo dafa am lu muy indi muy ñeenti poñ muy ñeenti côté yoo xam ne bu ci ne euh, day jàpp ci bi jàpp ci ba mu àgg cebee bee ngir li nga bëgg am nga nga da ko am ndax bu ñu nee diisoo euh, lan lañu xaar ci diisoo te mu nekk lu am solo loo xam ne balaa benn pénc mën a taxaw wala benn euh, organisation wala lenn lu mënti doon faw diisoo day am pare diisoo muy njëkk lépp moom la Olof Njaay di wax naan nañ ko def gu nañ ko waxtaan dama ko war a jiitu yanu ko yanu ko xëy dañuy déggoo wat gaal ak yëgoo yëpp xeeti terme yoo xam ne olof yi da koy joxe ngir bëgg xam ne diisoo mënut a ñàkk ala kulli xaal ndax diisoo bu amul rek li nga bëgg organiser du jaar yoon te dañuy wax ne diisoo mooy waxtaan mooy indi organisation mooy tax li nga bëgg organiser mu am nosewu mu nosewu li nosewu tak mooy indi li ñu mën tuddee résultat ndax lu nosewut mënut am résultat résultat mënu ko am résultat nag lan moo ci topp mooy réussite mooy succès donc kon nga xam ne bala nit ki da xalaat ne war naa mën a réussir ci ci ci ci ci dundam wala ci pénc mi faw daa war a njëkk ni diisoo moo war a njëkk jiitu mbir mi diisoo moo ci njëkk jiitu diisoo bu amul organisation dara mënut taxaw organisation bu amul tamit résultat mënut tam résultat nag mooy indi nag résultat yu favorable la ñu bëgg wax yu baax mooy indi nag li ñu matu réussite mooy tax lépp mën a jaar ci yoon. l'islam comme yàlla suma wa taala moo ñu bind te moo xam kaw ni bi alaa ya'lamu xalaq yàlla xaw na univers nan la nan lañ ko war a dundalee ba tax jàmm am loolu lépp da gis ne yoon yëpp lislaam tracé nañu ko moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam lépp luy tax pénc mam jàmm lépp luy tax askan wi nekk ci jàmm ak salaam dañu ko tracé tegal ñu ko moo tax suura muy diisoo lu lislaam fonk la lu lislaam digle la jàmm benn étape la boo xam ne mu ngi ñëw ci ginnaaw dañuy tuddee as silmul ijtimaa yi as silmul ijtimaa yi mën nañ koo tënk rek ci li nga xamante ne moom mooy jëflante bu rafet bu dox ci ay biir mbokk ñoo xam ne ñoo bokk dëkk ci benn benn gox jëflante ju rafet jooju demalante gi jàppalante gi loolu continuité mooy nekk li nga xam moom mooy jàmm kon jàmm gi nga xam ne ñu ngi koy wut te bëgg mu sax ci suñu réew mii nga xam ne ab xéewal la bu ñu yàlla defal jàmm googu mënta am lu dul ne dafa am lu ko jiitu te moom mooy jëflante gu rafet suñu biir fexe ba loolu sax dàq loolu nag moom mooy andi li nga xamante ne moom mooy jàmm gi nga xamante ne ñu ngi koy wut. jàmm googu nag dafa am njariñ goo xam ne moom lay jural alfard bi nga xam ne individu biy dund ci ab société xam ngeen ne bu ñu waxee société ay individu ñu koy composé individu yooyu composé li nga xamante ne moom mooy ay famille famille yooyu nag ñuy mujjee composé li nga xam moom mooy almujtama kon individu yi bu ñu nekkul ñoo xamantene ne am na dal ak mbaax gu nekk ci ñoom famille ya mënuñu am dal ga ak mbaax ga famille ya bu amul dal ga ak mbaax ga penc ma kenn xalatul dal ak mbaax ak jàmm di fa judd motax kon dañuy war fexé ba jàmm ci boppam nekk loo xam ne individuellement ñun ñëpp dañ koy yëg di ko dund yow mi jàngale ak élève bi jàng bu réew mi yëngatu woon yalla ñu ci yalla musal moo tax kenn waru koo seetal ñi àgg étape boobu ab réew bis bu yëngatoo ana ban woyu jur mooy bàyyi doomam muy génn këram te mu leer ko ne ay ngànnaay ngi dàqante ci mbedd bi kan mooy bàyyi doom boobaa na nga ko demal jàngi ci ma sax xale ya waaye ban enseignant mooy volontaire di génn bu boobaa bàyyi njabootam nara a sacrifier ba kanam bu dee fukki enseignant lañ mën naa wax ne juróom ñett ya duñ ko def kon pour xam-xam law nit ki am àq ci jàng am xam-xamam loolu jàmm ak dal moo ñu ko mën a may. dëkku senegal li ci ëpp diine ko sos ci sos googu dëkk yi sosuwuñu rek ku ne beru dañoo nekkoon aussi ay réseau amoon na fi ay daara amoon na fi ay université waaye université yooyu bu ci nekk dangaa ngaa ubbeeku woon jëm sa moroom ba tax nit daan jóge Fuuta ñëw jàng si. Kajoor ñuy jóge Kajoor dem jàngi Fuuta ñuy jóge fii dem Mauritanie ñuy jóge fii dem Saalum mu doon loo xamee ni dafa laltaay ak mbokkoo ba tax buñ nee sëñ Touba ñu ne ñu ngi tuddee ku dëkk Saalum. Mhm. fa la juram waaw yu mel noonu. nga gis ne kon war nañoo changer suñu perception suñu gis-gis ci réew mi nu mu juddoo ndax réew mi réseau la juddoo réseau li ñuy wax réseau ci la juddoo. maanaam ràbbaloo euh, fasanti ko na ko wolof di wax kon loolu soo soo doon euh, retracer tey histoire Sénégal bay ba def ko carte mën nga gis ne dëkk yépp dañoo ràbbaloo woon ràbbaloo ci mbokk ràggaloo ràbbaloo ci ngëm-ngëm ràbbaloo aussi ci xam-xam ci weccee xam-xam ci daw boroom xam-xam yu mag ñi ku ci nekk daw jëm sa moroom ngir wuti fa loo doolee ko loolu mooy cosaanu réew mi ba tax ba ci ñi nga xamee ni nii ñoom ñoo sos suñu tariixa yi yaakaar naa sëñ maam Cheikh wax na ko sànq joxe na ci ay exemple exemple yu bari mënees na ko ci fàttali waaye ci lu gën a récent gis nañ fi lu mel ni conseil supérieur islamique xam am na fi. am na am indépendance. ci taxawaay bi fi tubaab bi am amoon. Euh, di suñu askan. indi njàng mi nga ni moom fi ind indi ba ko fi indee euh, indi fi constitution indi fi ay règlement indi fi ay loi lépp mu jëlee ko France suñu mag ñi taxaw mm-hmm. daal di ne kat li koy faj ñu di bokk jàngat bu ñuy jàngat ci yooyu tubaab bi indi fi. man damay wax ne démocratie dëgg la jullit yaa ngi koy wax mais ñoom bokkuñu ci tubaab yi nanguwuñu sax réewu jullit yi am démocratie ñoom dañu bëgg ñoom kese ci seen bopp ñu koy doxal ci seen biir mais bu jëmee ci réewu jullit duñ ko nangu te histoire loolu la wane. yéen ñëpp xam ngeen ne 90 élection yi amoon Algérie bi ñu bi population bi tànnee fiis ñu xam ne fiis gii ni ci lislaam lañ jëm dañ ko gàllankoor fa lañ yàqee Algérie ba léegi réew ma yàqu dellu ginnaaw ay juróom fukki at ci gannaaw ñun ñëpp ñu teg ci suñu bët bu ma ko limee day guddi waaye li ci mujj mooy bërki Dembo Ndiaye docteur Mohamed Moursi ci Égypte nga xam ne la ko fal moo ëppoon la fal Macron ñu rey ko toroxal ko lakk ay nit boo demee ci internet ba léegi da ngay gis nañ leen lakkee ca Rabia réew moo xam ne ci démocratie lañ ko fa tubaab yëpp noppi jullit yëpp noppi kon démocratie jullit nañ xam ne du pour ñoom loolu laa bëggoon na bàyyi loo xel lislaam bi mu ñëwee dafa am ay valeur am yoo xam ne moom la doon jox àddina valeur yooyu bi ci ëppoon solo mooy al adala mooy la justice l'islam bi mu ñëwee dafa am ay valeur yu mu doon jox àddina valeur yoy bi ci ëppoon solo mooy liberté l'islam bi mu ñëwee dafa am ay valeur yu mu doon jox àddina yooyu bi ci ëpp solo mooy nit ñëpp yemoo jullit bi ak ku dul jullit bi ku nekk dañ lay jox sa àq valeur yooyu bi ci ëppoon solo mooy tolérance donc yooyu saxaaba yi moom lañ tasee l'islam ci àddina bi forcé wuñu kenn par rapport guerre yi am ku ci yàlla musal da nga koy sant waaye yow réew xam ne 97 pour cent ay musulman ngeen

set lexique yi mufradaat yi vocabulaire yi di nga fek ñu ne la shura moy talabu ahli al-ilm wa ra'yi fi qadiyatin min al qadaya mom moy fexé ba am gis-gisu ñi nga xamné ñoy borom xam-xam yi ak ñi nga xamné ñom ñoy jité jiite xalaat yi ci penci ñi ngi tuddee les leaders d'opinion aujourd'hui nga fexe ba dajale seen xalaat ci ay question yo xamné wala ay mbir ay laaj yo xamé da fay soxal doxinu nit ñi ci seen biir jamono kon da fay melni concertation shura euh moy fexe ba borom xel yu rafet yi borom xam-xam yi ànd ak yene bu sel seeni goj laxaso roti ngir génne ndox mu sel moo xam ne bu nu ko naanee sunu mar dana saafarawu ci jafe-jafe yi nga xam ne nekk na ci sunu kanam ñu war ko régler kon da ngay gis ni le principe de la concertation boroom xam-xam yi ñoom dañ ko jàppee comme lu nekk laltaay ëpp na sax laltaay dafay nekk benn kenu boo xam ne dafa bokk ci li ñoom li ñuy tuddee Euh, euh, al hukumu rachid ñu koy tuddé la gouvernance vertueuse képp ko xamné bëgg nga doxal loola ñom dañu jappé ni concertation consultation shura dafa bokk ci asaas dafa bokk ci ërkaan yi dafa bokk ci euh, fondement yi dafa bokk ci ponki subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin